一次。 barakallahu fiki ñu jall ci kadinjai Ndiaye Khady Ndiaye Serigne fallu gey mo ci al bayan fi sammi dunya wa sawaliha leral si ngagne gi yalla ngagne aduna ak ñak solo khala taala yalla mu koy mi nee na bal tuusiruuna alxayaata dunya yen nit ñi yen ay jema xewem dunduk gi wa ala akhiratu khairu wa واي الله اخره دمو غنت موي مجو وخال عليه الصلاه والسلام ينت بي صلى الله عليه وسلم ننا الدنيا ملعون وما فيها ادنا ده يا رب نغه بربال لب لو نيك سبير ايو ايها الناس اي نيني ان الدنيا دار من لا دار له ادنا ده كر لا كو خامي كيب كو ولها يجمع من لا حقل له كي دجل ادنا دموي كي خامني امول خل دار فناء وحرور كرغو جيخلا اكرغو راكون ومصائب تنصا اي مصيبه يو خامني دن لا فاتلو كل مرحم وسرور بيب مبكتي اك كونتانتي عزيزها ذليل لب لو في تيترو بنكاي تيدا عصيصها سليل lépp lu fi tedd bañ koy tiitaroo day mujj niil wa kasiiruhaa xaliil lépp lu fi bare day mujj neew wa hayyahaa yamuut lépp lu fi dund day mujj faatu wa kasiir wa yafuut lépp lu fi gën day mujj wees wala yarkanu ilayhaa deesul jéng jëm si àdduna illal axmuqi lu dul dof الأعمال البصير كأي بتم جنبا ولا دار الآخرة ويكرو الآخرة دي هي مرجع والمآب فلن يدل فلن يمجي وتقوى الله رجل لن يالا خير صاد وأكثر صواب رجل يالا دمو أبيول تمو يبال بيغن وما بعد الوعد وما بعد الودان إلا الفوات dara nekkul ci ginnaaw am gi dudul ak ñàkk wa ma ba'dal mamaati illa hayaat dara nekkul ci ginnaaw dundu gi ludul faatu wa ma ba'dal xusuuli illa saknal xubuur dara nekkul suñ ginnaaw kër yi ak suñ pale yi tabax ludul dem dëkk ci sa bàmmeel ya in ahsantum su ngeen rafetalee ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen koy defal way nasaatum falaha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 فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله دين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يقربونا إلى الله سلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بصا فكانت هباء منبصا وكنتم أزواجا صلاصا فأزعاب الميمنة ما أزعاب الميمنة وأزعاب المسأمة ما أزعاب المسأمة صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدي جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبحث حيا ذلك عيسى بن مريم خول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم taalif bàyyil naar bi yow mii di pari fut li ngay def yàgg-yàgg doo si am tus loo liggéey ba ngoon naar bi jël ko warax boo ci saxee yàgg-yàgg yow dangay torox doo dëkkee lu dul barsa ma yàqol mbaa rus nag boole ci wokk bopp mel ni ku siti boo bàyyiwul naar bi doo tukki tekki te doo tabax doo takk te doo teral yaay it maa la ko wax maytul ma jënd paas yow mi dëkkee whatsapp lii la war daa bare seen kër sax am nga faw sas kaziga umwa nga jeexal ko ci kazur li ya tax ndaw si bu taajee añam ba du suur dem jëndi pass ki kan layap li kay ya tax set bi amatul ben ndap dem topi whatsapp facebook wala youtube je sa sata yak sa khalis ci fot fot bu ta de mu ni cundum ci ëtt bi tok tegalay tànkam di xaar wi ngir bëgg a tiktok waati wi yéen lii dëgër fit la wala saytaane yéen doo commentaire ci loo xam ni guddi nga koy télécharger wax ju génn bees nag ñu jël ko def ko aw xew ku nekk naan sama wàll ci xew mi toog ni xewu na mus mu naan diw make-up montage istati ñu naan la yaa sañ sekay boo sol moo rekk wekki di mel ni nga jaxasey color mel ni suppu budok, bu doog ñu di la jay ngay wëndeelu mel ni dof bu rab duggu li xew ci rew mi man dama alam billahi yalla xamna ni man dama gëlëm sinab raqas publié ñu nan la ya ko fa am ngay siñi bañ nan okay ya ko ko ye xa am yow rek lay topp mbaa fa ngeen jëm dana am ndoxam déet mbaa bu leen waxtu julli dabee da ngeen jàpp am déet bu seen njëkk yi ñaawee lu ma ci man yaa ko yeyee laaj sa kanam gaa ngi notteres na mbar mu ab kar daa mbëkk bete bete tax réer bi ñërul kii de moo jara xas toppandoo jay na ba tax mu mbéj gorom sayam tas li xew ci réew mi yépp wax ko cat dalay dugg may avocat réew mi li xew de ko na ci dugg wa akhiru kalami hanil hamdulillahi rabbil alamin صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على القاطعين الذين يظنون أنهم ملاق ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله العظيم أحس بالله من الشيطان الرجيم بسم صدق الله العظيم صدق سدارة أما الفلة فلة خلي بسم Mbawor tabarakallah bam fi ñew ak legi bokul mu melni alquran comme niko serigne bi waxe legi serigne mohammed fan euh tabarakallah dekk buñ koy jangé du yam ak dekk buñ ko dul jangé kër guñ koy jangé du yam ak kër guñ ko dul ko jangé jëm jum nekk du yam ak jëm jum nekkul fa tabarakallah melni serigne Omar ah def na ci dëkk bi loo xamante ne ci alquranu karim mbokk yi seedal ko fa tabaarakallaahu xale yi tey boo fi tasoon kaamin du taxaw dama jëlale xale yëpp waaye kër goo dugg rek ba fa tasee kaamil ñu jàng ko kon loolu ci liggéeyu Cheikh Omar Ndiaye mii la kon ñi ñoom li ñu ko wax lépp seede la boo xamante ne ñun ñii di ay moroomi jàngalekatam bokk fu jàngee bokk lu ñu liggéey ba fi ñu toll ni ñëw bokk lu ñu yëngu ñoo nekkuñu benn ñaar lanu ñun la nekkal fii ñu fa nekkati moom lañ fa nekkal xam nañ si dara fa tabaarakallaahu liggéey bi rafet na alquran bi leer na te lam fi doon jàngale alquran boobu na noonu la ñu koy jàngee ba léegi lam fi doon jàngale ci wàllu euh, jàngale ci wàllu wa xeetu alquran ci nim ci matière bi ni mu ko daan jàngale ak tajwid bi ni mu ci daan sonnee fa tabaarakallaahu xale yi ba léegi yoon boobu la nekk di ko jàng ba léegi kon oustaz ñu ngi lay jaajëfal di la ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu fay la ak mboolem ñi nga xamante yaa ngi ko ànd ak ñoom que saalika yi nga xamante ne ñoo aju woon ci ñoom ñoom lan boole woon ak Omar tamit tabaarakallaahu mosu réeroo benn yoon loolu moo indi ñàkk réeroo gi moo indi bisub tay bii comme nii mel ne Omar mi ngi ci biir dëkk ba léegi fa tabaarakallaahu xale yeetim delloo nan batto ca fan ko war a delloo ca ndaa la fa tabaarakallaahu ndax Omar lu mu am ban ko koy sante itam fa tabaarakallaahu mu diir mooy moom moom moo ko ko ji kon xale yi kon delloowaat nan li nga xamante ne delloo nañ ko fan ko war a delloo muy lépp di suñ kilifa Oustaz Souleymane Sall al mudir xafisahullah waraahu yal na yàlla sàmm ko te yàlla ay yëggale lépp loo xamante ne méwat na ko ci markas bi fa tabaarakallaahu lii la xam ne ab julit amel na ko moroomam mooy nga mu di ko sant ndax ku dul sant nit doo sant yàlla fa tabaarakallaahu kon xale yi yàlla fay leen yiw usaas yàlla nañ ko ko muurloo ci jaloore yoo xamante ne yoo jagoo la yoo te jombulaatim fa tabaarakallaahu Ah, kontaan nañ bu baaxatim ci xale yi seen taxawaay ginnaaw ndax képp koo xamante ne teral nga kenn si sunu mbokkum jàngale jàngalekat day mel ne ñun nga teral kon ñun dañ ci am mbégte boo xamante ne tabaarakallaahu nii ma koy waxee ñi wër taawal bi yëpp mën nañ ko waxee noonu tëyeer naa jaay naa ko fekk banaan ak poobar tëyeeral jaayal ñawal sama fu am xar mu rëy moo fi yeewee ba ma tas dem suñu kër xalaatal ba may am alal di yeewi laa dum daan lay jëndal mbase di la jox koppar. amul fii lu nu fii xalaat mënoo kon bàyyi ki man ñëw jëndal ma laadu mag saag ak sér. damay man dan laa jox di jox seen waa kër. kon wéroo. bu may ñàkkit xanaa kon nga war maa jox cër. waroon ngaa xam ni kat alal laa la toppe woon dubtaa baa xorom yow safoo sax suukar. bu lay neex sikkal ma tey na yaa daan wax. sakta beeg saktar nan ma baax nga yow am nga bi yar. ba may wax loolu jom ak set ak jàmbaare musoo koo dégg sama gémmiñ gii muy biir jom ak jàmbaare waral ma xëy yët dem xar nga war maa ndokkeel di xas ma yow sax doo gor xolal te sax wax jaa ngi bare na am xar ñëw mënul ñëw rek tey ma dem suñu ko te sub sëy ngir am xar ku man ko sax war koo ruus amul fii luñ fii ruus na jënd xar daf laa war bu lay neex nga bu dul leen nit yow rusal si ni doom yi toog toog muñ sëy sëy sëy bi ngir sa doom yi di mbër li gàttal wax sa kër gi laa dul yendu man ak yow fii la yam damay dem suñ kër doxal yoon waa ngoog comme xamaa buur saay na demal seen kër ndaxte yow waray sab tiitër demal seen kër ndaxte yow waray sab tiitër waaw kay nii la ku mënul bawoo lu yàqu yow ay eh, yow tamit nag bul meer may kaf rek ngay dëggal foo jëm mu waxtaane daan juboo may kaf rek ajaakaay fii yaa di sab xarit yow laa am te yow di sa lepp rek yow mi bul mer ba may man loolu lañ ma jox la dang may komb te muñ rek yalla baxna xar mi la yor setem ba ku jox la xol bi ak sa xel mi don sa donga di la raamal lii doon ab ay way ma xol ba sa xel mi dal na yow la am bo mere ma dundi tartar te baski ak rek la lo man def ko jarul leb xaliss jarul di tas dem sen keur ay e way aja kay tok te wax sa mbokk yi digen luñu am nañ sa yem na loolee seen cër ngeen war man sen jox leen respect na loolu kat mooy defar seen mbir ku am xar tax nga tas say wii bis jàllee nga rus ni jëkkër du far wa axiru karaami an alhamdulillahi rabbil alamin alif njooba laay yow mii labat ñëw di ndaw si nan njooba jàppal ni moo si duniya raw na am kooba jekkul jubul jekkiwul suy dem du tàggu jëkkëram du fóot ba yóbbaale morsab assuba buuba goroom ya ay bant lan koy laale muy ñuru gar ku nekk nan njooba wàññil muy wawas ooba te njooba sax boo ko deeseet bon gi yàgg na ndax ba muy xale lan ko xam si waaba ak jiiba ndax daan na xëy wax la wax joo xam ni ëpp na xel te soo dawul so ko to jot sa ŋaayoo ba seen bay mi len fi yabal ma xam nga ñepp ko xam ño bok def lepp mok sel papa yaquba yéen da ngeen di xale moo tax ma len di xamal ku bëgg nak ay te yaak jaak lo ci gis dig diglul ma wax la fi ñaaway ba ak na mu mel ak raaji sax daw na raw tay so gisoon ni wajji saf doomi rab tuutaay ba mel ni karang tey saafa nay nef bu xiiban tegsi di wooba ak raaja paacala yit ak raggajat yaramam te foo ko fekk ma ngay piccoo ca maaloo ba déedéet ak raaja paacala yit ak raggajat yaramam te foo ko fekk ma ngay seetoo ko yar komba déglul ma wax la fii nag gaafam ba boo ko gisee day fab loxoom teg ci kaw boppam na jondoo ba day saf mbubam roone lay dàllam te saa yi doxee samp baaraam ya fu aw tudd fa mu day màtt buy ree di sex baaraam ya te saa yu balee du lay du tonni du fukk taalam ba cay njooba déglul ma keroog mu naan faama yaa ñàkk fay dana dof ba njoogu njaay naan la yow bul ànde teg njooba man njoogu njaay bu amee may dem këram aka ñëw du daw baree lut mu naan day jéem xas njooba xamul ni man njooba buy réew ba agsi ci man dinaa ko faj ba mu wér ñam na ku njooba ma bàyyi adima njaay mu ñëw wax gaaf gi nekk ci njooba xëy du sax hôpital mo gën gise njoba setal opal gacha mom ak ak ka ga xami wax ak cëkk teew la def fum xëyee ma nga ca nga yoba du rombu gan ba yo day telli telli di wey du taj ba andale am ndox njoba lay ma wax la gan ga ak yakanti adina ga ak tayel ga sax jeegu weeram mel ni mas du wodd day petas lu cëkkal seram ya di dox muy telli telli muy nangi nangi sama nday kooba du lem dafay las du lal day jal di bokk sagar lum fën mu gàkk su mu lakk cam njooba lum togg kenn du kamus ngir kaani baata du ñor lum saf mu xam teku lekkul jot sa noonooba walam taxu saarata xasanan wa ma xasunat aqwaalaha maa laha fil wajhi malhooba man njoobalaay ni mu mel jaaxal waaju ko xam amul sawa makka ba askem suñ naan njooba baayam da koo xëy taxañ bis may ko moodu mu ndaw mu teste muy doomu baayam bëgg lool njooba baay papa mayoon baakar defoon na sa as yëpp waaye far fa weñ ñu may ko seex mu tas toogu fa at booba bay papa mayoon na ko doomam fan yu neew fa am taskar ga buub fa am xëy del ay njooba bay ma seex na ko takootun mu rey ko fa moo tax amul fii si réew waaju nam njooba man yóbbu laa laaju ma dara waaju ko na muñ te góorgóorlu tey sóoraale songooba tey sóoraale songooba pes nan ko yëgal waa Wah juga jalan naa la may fukki bi ak pak ak njoba am jay da fay baña araam bul nabu dina bu ayib te njoba lay ku ko xey mur mur nga ab kooba wa akhiru kalami anil alhamdulillahi rabbil alamin subillahi minas mana wor billahi kula la wul di nga ko wor samedi la won cangon ñu jot xibar bu dis ta metti lol ta bette bab la mil fay dem na demu ndaw ku baaxoon woyof ko fore rek ñepp doon xaritam foko massa na gis sijaara ca loxo jam jakka ba dem ba ñew

xayli la kaay jël la yóbbu say soppe di jooy ndaw la bu dem dewe na ndaw fu nu jëm yàlla buy jël du tàggoo day jëkki rek jël ku ne ci ñun am na lu doonoon ci yow nañ leen ko ñaanal mu am jàmm fu mu mën a jëm yay jalke i muñalde sant buur bi rabbana mi dul juum du ko lëm te lu dafa gën bu soxlaa ku soxli kinin doo xala am nan dëkkee ñaan ci moom tey ak ëllëg jàngal ko fatiha fukki salaatul fatihi yéene ko jaamu yàlla daf ko da yonante bi alayhi salaatu salaam yéen yàlla jotal ko yool bi ak mbooleem ku fa fekk ku fa war a mu mel nii rek la nañ ngoy ci alquran ak diine rek ku mën a doon rek dañ lay nettali di waxtaani sa mbir innamal mar'u hadisun ba'dahu fa kun hadisan hasanan li man waxa yan yàlla wërsëgal ñu ko euh, hadisan hasan أعوذ xayru ma yunfaqu fihi almaalu kon loolu bayit boobu rek tënk na jotaay bi yëpp lépp lu ñu wax rek alxuraan mooy la ca gën lépp lu ñu financé ci wàllu finance alxuraan mooy la ca gën fa tabaarakallaahu kon jotaay bi kenn amul lu ko ëpp fa tabaarakallaahu dulul jotaay bi rek jotaay bi moo gën ndax bu ñëpp jaaxlee fii ne kalimatu kalimatu euh, quraanu karim buñ ko yëkkatee rek nit ñëpp naan tekk ndax dañuy xam ne wax jii du waxi du waxi nit waxi yàlla subhaanahu wa taala moo tax tekkaaral ji ak xerawlu ji kenn amu ci sago fa tabaarakallaahu kon ñuy santaat yàlla subhaanahu wa taala boobu ñu mayee ñu commencé ci bismillah àggalee si alhamdulilah ndax loolu lañ ko ñaanoon ba ñu tàmbali kon may na ko kon ñu ngi koy sant ñuy wax mbooloo mi yëpp ñu àndandoo wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin kon bu ko defee kàddu yi dañ koy jox kilifa yi rek ñu jottali seen kàddu yu ñu naan yëkkati muy ñetti kàddu kàddu dëkk bi dañ koy boole jox ko kenn mu waxal waa dëkk bi yépp yal na suñu boroom defal nu wér defal nu wérle defal nu fekke defal nu tal lii nu tàmbaleeg bismillahi rahmaani rahim yal nañu ko àggaleeg alhamdulilahi rabbil alamin li ñu tàmbali ci subaak léegi lépp lu fi jaar yal na suñu boroom nangu ko fi indi bakar yal na suñu boroom saafara ko fi indi njàqare yal na suñu boroom teggil la ko burmati allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nun no ngi len di gërem di len siyaara yit te di len jéggulu no ngi len di jéggulu bu wér ah wax dëgg yalla li ngeen dafa reyna amunu payam yalla mi am seen fay yalla na yalla fay len yalla mi am seen fay yalla na yalla fay len dëkk bi yépp and nañu sant nañ len gërem nañu len ah xana di jéggalu rek xaq yi nga xam ne xamel nu leen ko te mënu nu leen koo fay yal na ngeen nu ko jéggal ah te yal na yàlla jubbanti nu yal na yàlla jubal nu ah andey sant naa leen gërëm naa leen wax dëgg yàlla te itam xale yi di def nañ lu daw sama yaram tey leen fay mi di jooyuma ma koon waaye tey jooy naa yàlla mi nga xam ne moo am fay te man leen a fay yal na yàlla fay leen wax dëgg yàlla ndax moom it la ko sunu borom defal ndax njaatigéem li mu doon fekki keroog nee na ma ba mu xëysee dafa dikk ba agsi ak basang la jël lal ko bu mu jëlee basang gi lal ko woo mboolem menee bari yi nga xam ne ñoom lay àndal yépp ni leen kaay leen toog ci basang gi nee na maag ñoo maag menee bari nun ñëpp noo bokk toog ci basang gi mu ne tàllal leen seeni loxo ma ñaanal leen yéen ñëpp nag tey maay seen sëriñ tàll leen seeni loxo ma ñaanal leen nee nun ñëpp nu tàllal suñuy loxo mu ñaanal nu ba àggal waaw ah, man leen loolu nag mbirum yàlla la ndax ku jóge ci cinquième étage daanu ci suuf sa bopp jëkk ci suuf ngay wax ba dem hôpital mbirum yàlla la ah, yàlla mi ko xëy defal la nag yàlla na suñu borom teeloo ko a malaaka yërmande jéggal ko jéggal ku mu fa fekk ak ku ko fa fekk jéggalaale nun ñi ñëpp yàlla na suñu borom jéggal nu ah lii ma gis fii itam yéen ñii di wax dëgg yàlla ñeent yi nekkul ci yéen gàtt ñuul ñaaw bare kawar ku ko def booy day dem safara kenn mënu laa ram gàtt ñuul ñaaw bare kawar booy dee di dem safara gàtt mooy gàttum xel ñuulub xol ñaawu lamiñ bare bàkkaar kenn mënu xel ñuulub xol ñaawu kenn mënu laa ramu loolu mooy gàtt ñuul ñaaw bare kawar maam alxaaji Malik nee na bokk yow ci ndab araam na sëñ Touba ni ko ku dee kenn mënu koo ram kooku nag yàlla nañ ci yàlla musal yàlla mi am musle te mën a musle yàlla sunu borom musul nu ci loolu loolu nak dalu leen yéen ñi wax dëgg yàlla soxoru leen xiñaanu leen ñaawu leenum xel ñaawu leen lamiñ yàlla na sunu borom taxawu leen yàlla na sunu borom taxawu leen képp ku fi indi aaji yàlla sunu borom faj ko képp ku fi indi jàngoro yal na sunu borom saafara ko ku fi yor njàqare yal na sunu borom teggil ko ko burmati allahuma salli allah sayyidina muhammadin wa sallim yoon wii Ousmane Sall Ousmane mais na mu tuuti oustaz Souleymane mi nga xam ne moo ko tracé indi ko fi indi fi Omar Ndiaye mii mboolem ñi fi jaar ndax wax deug yàlla bo demé ci dëkk bi kër gu nek go ci dugg lu mat juróomi xale wàcc nañu fa alxuraan lu mat juróom wàcc nañu fa alxuraan koku nak amunu fayam li tambalé ci Ousmane Ismaïla Sall jaar ci Omar ndjay ba ñëw ci Abdou fay mi Ndiaase ñum ak oustaz yi fi jaar yépp nak te bok ci jami wax deug yàlla xamel nañu leen jukkal xamel nañu leen njukkal te mënuñu leen fay yàlla nak mo am seen fay mo leen mën fay mom lañ leen di bayel ndax nun ñaan rek lañ ci am ya no ngi leen di ñaanal nak yàlla na yàlla jubal seeni xel yok seen xam-xam may leen katan dafa leen wér wér le fekke tal yàlla na suñu borom defal leen ko defal ko bépp julit bi sallallahu alaihi wasallam ngeen jéggal ma dama damaa wax ci ay ki motax wax man du du samay mbir jërë ngeen jëf. ah nañu leen sargalal mudir wax dëgg daal tubaarakallah ñaanal nañu seeni i jurit ñoom ñi leen tette ba teg leen ci buntu boobu ah ba ñu am ca lañ ca am ba sañ a tagg Oustaz Ndiaye sañ a tagg Oustaz Faye sañ tagg modir ah di ndokkeel nag seeni i wayjur yi leen booleek ñoom wax nañu ni daal seen cant daal am na commencé waaye amul yemu am na commencé waaye amul yemu seen xol nag sedd na wax dëgg yàlla bu ñu amoon la leen gënal dañuy teew si tey jii ci bis bi ñoom ñëpp waaye xate-xate yi tax na kenn ku ci nekk léegi la nga bëggoon mënoo ko leenoon duma ko man sax ndax man ak jaxasoo dafa ma yomb waaye nag lu mu gàtt-gàtt rek loolu moom da ngeen ko dégg dinaa leen ko jàllaleel kon nag ñu ngi sàkku ci yéen mbooloo mi ñaan na ngeen du ñaanal ñaanal njaboot yi ñaanal dëkk bi Oustaz Ndiaye mii nag wax dëgg yàlla wax ci moom dafay xaw a yomb lool wax dëgg yàlla ndax mu ñëwee léegi yàlla sama borom dogal nañ ñi dénk ma leen ma dëkkoo leen ñoom fii ci biir kër gi waaye mosuñu maa indil benn jafe-jafe fii ci biir kër gi wax dëgg yàlla mosuma ñu am problème ak ñoom fii ba yàlla sama borom dogal mu génn fii tey ji dellu ca ngumba waaye tey lañ ko gën a bëgg tey lañu ko gën a bëgg tey lañu ko gën a bëgg ñoom waa dëkk bi yépp nag ak njaboot gi nekk ci àll bi kon nag fa tabaarakallaahu ñoo ngi koy ñaanale fu mu mën a nekk rek yàlla na ko fa yiw yàlla fekk te yàlla defal ko fa sutura dolli ko fa xeewal ah day yokk tool bi rek ak waar wi rek fa mu nekk ah ñi fi nekk itam ñu ngi tegu ci yoon rek fa ñu fa mu leen bàyyi woon rek ñoom itam bu ñu ko yokkul it wàññiwuñu ko ah ña nga ca kon nag léegi nañu leen ñaanal rek yàlla sama borom dimbali leen dooli leen sutura ah ba ndaw ñi li ñuy bëgg a def ci ñoom ah si ci seen yéene ñu yeggale ko waaw ah, ñu yeggale ko insha allahu wax dëgg yàlla daal bëgg nañoo wax lu ëpp loolu li ci xol bi moom lépp mënut a génn waaye comme jotaay bee laaj loolu nañ ko bàyyi noonu rek su ko defee léegi ñuy yokk ñaani rek tabarakallah dir moy na jërë ngeen jëf. diir mooy suñ kilifa mooy suñ parent sama papa ngi nii toog su ma ko joxee kàddu gi gitu, danaa joxal Oustaz Souleye loolu leer na ma naañ Serigne Lamine Seye ngi ne sama imam Gàkkoo ngi nii su ma ko joxee mu ni joxal Oustaz Souleye kon dañ jox Oustaz Souleye mooy suñu kilifa ñi ñëpp parce que man par commencé fi ma jeexee xajul ci bis bi mais ku sant war ngaa xam ne man mii sant naa la su ma la santul nga xam ne sant ma la li mu ñu daal def ñaan soxna Faama moom ñaan na kàddu incha allah mu ngi nele jóge ba Louga ànd ak uh, Adja ak uh, Say Ngom ndeysaan bis bi yitteel leen ñor leen lool. di sant nag ki nga xamante ni ñoom laa àndal muy délégation bi jóge Louga ma leen di sant bu baax di leen gërëm tey nag bu ma taxawee fii di wax sëñ Abdou Faye mii moo ko waral tey jii bi may ñëw sama yaram sax neexul. waaye dama ni tey jii su ma doon raam sax ginnaaw yàlla damay ñëw ci bisam bii ndax moom moo ñu ko wan ndax li naan xale bu su loxoom setee mu mën a ànd ak i magam macha allah suñu xamante bi ñu xamante réccuwuñ ko ndax macha allah tànqam luwul kenn ndax man damay amee soxla ca Louga mu fajal ma ko ci fi mu nekk kon dañ koy sant di ko gërëm di sant képp ku nga xamante ni yaa ngi fi toog di ñaanal way dawlu bii fi jóge fa mu jëm yàlla ko dàqal fi mu jóge waaye nag sant nan di delluwaat di sant nag ginnaaw yàlla sëñ Abdou Faye nii ndax macha allah tey bii liñ naan bu li ñu bëgg a wax lépp liy duuf ci nag bi xajul ci cin li ñun liñ ko yéene ak li ñuy wax ci moom yàlla rek lañ koy seedeel te tey bésam bi incha allah bu jampul woon kon dana ñëwee neneen. te dañuy ñaan yàlla di fi ñëw chaque année di ko fi fekk ndax mérito na lu ne macha allah dañ koy ñaanal gudd fan ak wér ak képp ku nga xamante ni yaa ngi ci ginnaawam. mbooloo mi ma àndal nag muy délégation bi seen kàddu laay waxee ndax ku ci nekk li nga bëgg a wax ci moom xajul fii mais dañ koy ñaanal gudd fan ak wér macha allah ndax xëy na diggante Louga fii xëccul waaye man mii tey bi wéruma sax pour ñëw fii waaye moom mii dama jaral lu ne ak lu ne. tay dama ko ñaan ci kàttanu yàlla ni bu may raam sax bëgg naa dem fekk ko fa mu nekk kon lim bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal ak bépp jullit boo xamante ni yaa ngi fi toog kontaan nañ ci ñëpp macha allah. waaw bu jàllee mooy li ñu njëkkee mooy euh, ginnaaw bi ñu sante ñaari way jur yi ndax lépp ñoom la ndax nit am na njaboot te jàngloowu ko kon ñoom bu ñu jëlee boole ñoo ku def bu fekkee am na mel rek ci ñoom la mu jaar jaar la ko ci loxol sëriñ bi kon ñun fii am ñu fi kàddu moom moo ñu woon fii euh, fële indi ñu fii pour ñu liggéey ak alxuraan kon lépp lu ngeen jàpp ni lu fi baax la moom moo ko baaxal ndax ñun danoo abboon làmmiñu jàmbur ak xam-xamu jàmbur doon ci doxee mais bu fekkoon suñu xam dong xam-xam la ak suñu lëndamaay kenn duñu tudd fii kon sëñ bi ñu ngi lay sant di la wax bu fekkee am na lu ñuy sante sant boobu yaa ko moom ñu ñaan yàlla ci barke alxuraan yàlla na yàlla taxaw la yàlla sàmmal ñu la bàyyi la ak ñun nag ba ilal jannati insha allah waaw waatee ba ñun amuñu seen fa yow xam nga ci dara boo jëlee kàddu di nga ko matale parce que kii moom tabaarakallaahu moom xam na xam naa la ci des yàllaa kay mottali ba ca des nag mooy bàyyi ma taar tabaarakallaahu li nga wax lépp dégg nañ ko yàlla xam na ni fii man damay doj ak nit sax mu di ma ana waataay ba ba biir ngumba lee ma daj ak nit mu di ma ana waataay ba yëgul ni sax maay ngumba ba léegi waaye xam naa bu ngeen demee ba soxla juróomeelu jàngalekat incha allah ngeen jël si ma asalaam. ci ndigalu Cheikh Souleymane Sall ñu ngi sant waa Taïba yépp ñi fi dëkk ak ñi fi dikk ci kàddu yu gàtt comme ndigal la sañu ñu bañ wante suñu ànd moom kàddoom mooy sunu kàddu jëfam mooy sunu jëf comme ni ko Njaay waxee waaye Cheikh Souleymane nee na mu ngi sant ñi nga xamante ni délégation yi fi ñëw mooy mbokki oustaz Abdou Aziz Faye lu commencé ci papam ak bàyyi Ndeene ak ñi mu àndal ñëpp ak jigéen ñi ba ci soxna maam Awa Seck di sant kilifa yi Aziz Guèye ñi nga xamante ni dikk nañu fii lu commencé ci Baye Mbacke ak waa dëkk bi ñëpp wax dëgg yàlla ñoom ñëpp gis na leen gis na seen i taxawaay kon lii day won waa ba gone yi ñu ngi fi wante seen i mbokk yi bàyyi nañ leen xel Abdoul Aziz mi ngeen di gis su ma wuutee jumaa mooy moom mooy wuutu ci jumaa ji kon xam ngeen ni yéen bëgg ngeen ko mais ñoo leen ko gën a soxla tey tey bu fi jóge woon su ma sañoon mu dellu ci dëkk ba kon mook Abdou Aziz Guèye mii kon seeni taxawaay bi ñu fiy def macha allah ñun kontaan nañ ci lool suñu fi ñëwoon gis beneen doxalin itam daañu am gàcc waaye li ma gën a neex ci jotaay bi xam nga kiñaan fu mu dëkk ci ñi jàng alxasadu fil ulama waaye dama gis Abdou Aziz mu doxal fi benn acte boo xam ni jàngkat yépp na am luñ ci jël njaay mënoon na fi jóge xale bëgg delloo njaay njukkal Abdou Aziz teg ci tànkam waaye ndeke li ñuy wax Njaay ak Fay mii ay doomi ndey lañu gën naa déggu tey Abdou déggal na ko tey kon Njaay yaak Fay ñu ngi leen di ñaanal yàlla seen ànd gi yàlla na dem ba aljan incha allah beneen bi itam jigéen dina sëy ci dëkk tas ñibbi am gàcc ñibbi si dëkk bi kon Njaay bu ne su ngeen soxlawaatee beneen jàngalekat na ngeen ko woo mu ñëw loolu gëm naa ne lu déggu ci moom gëm naa ne jëfee na hadis yon bi salaahu salaam mooy wa xaaliqi naasi bi xuluqin hasan kon ci gàttal Cheikh Souleymane la ma deeyoon ëpp na loolu mooy ñu ngi sant ñëpp mbokki Abdou Aziz Faye ak mbokki Abdou Aziz Guèye yi ñu ngi leen di sant yéen waa ba yëg nañu ne yéen a ngi jàppale xale yi té nak incha allah taala su ngeen continuer ci kanam di ngeen gis lu upp li ngeen gisoon ndax leen nekkon ci njaay mo nekk ci Abdou Faye mi nek nekk ci Abdou Aziz Gueye waye lepp nak day delo ci kilifa gi nga xamanteni ni jité njabot gi moy Cheikh souleyman kon ñu ngi sante ñëpp di jégalu ñëpp Baye jori ak Baye mbacké ñu ngi leen di sante ak délégation yi ngeen andal ñëpp gis nañ leen soxlu ñu leen di lim ñu ngi sante wa tayba nak lu commencé ci chef de village bi ba ci ki nga moy gi bi ni ñu fi dikke woon su ma jóomul ci at bu njëkk ba ba tey kanam boobu moom lañ ngeen moom ngeen ñu woon kon yàlla moo amee fay yàlla na yàlla fay ñu ngi sant nag sunu kilifa sunu mbokk ci wàllu diine mbokk ci wàllu xam-xam mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Seye mi nga xamante ni mooy doomu Cheikh Abdou Aziz Sey mu ñëwal fi Abdou Aziz waaye ñëwal fi mboolem koo xamante ni kilifa nga ci ngumba kon ñu ngi lay gis di la sant di kontaan ci loolu waaye di bëgg ci sa teewaay ndax soo teewee mel na njaboot moom si Alioune Ba yëpp teew nañu loolu yëg nañ ko xam nañ ko suñ ko waxee suñ ko waxul ñu ngi jégalu ci kaddu yi ñu ngi guddal Cheikh Souleymane bu fekkee mat na yàlla la soo manqué nga xam ki doon wax moo matati allahumma salli ala sayyidina muhammad sallim Abdoul Aziz Faye mii papay Cheikh Mouhamadou Lamine Sey mii lañ ko tuddee mooy Abdoul Aziz Sey mi nekkoon ngumba kon loolu sant yàlla la wax dëgg yàlla ñu ngi ciy bég te itam soo jamiyatu taxi bi amee doole ci tund wi yàlla ak Abdoul Aziz Sey la kon loolu dañ ko xam ñun ñëpp waaw dañ ko xam ñun ñëpp ñu ngi sant yàlla kon Lamine Sey sa teewaay bi xam nañ ko gis nañ ko ñu ngi ciy bég bu baax di ñaanal aji dem di mooy Abdoul Aziz Sey yàlla bu jëfam ji niil ci gannaawam allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim njukkal gi nga xam ne def loolu moo ma daaneel man ndax li gën a am solo ci nit mooy ñàkk kañaan nit tànk yaa ngi añaan rek amoo dara ci yàlla waaye am naa si suyee na fii rol boo xam ne man foofu laa yéeme suma bopp ndeke la ma ko jàppoon duubul laa koy def njukkal gii mu njukkal oustaz ak xale yi ànd bu ñu ànd ak njukkale ko oustaz lolo ci mom la Abdou Aziz mi ku ñak kañaan ngi ku ko japp japp ku bax ku ko téye ku baax ñàkk kañaan moo tax ma and ak mom barki cheikhul khadim ku ñak kañaan ngi ku am yalla ngi ni ku ko japp wallahi doo perte yeen wa Tayba gi na ngeen si jamiya bi jamiya way wu lañ am ta fiñ tek ci sen tank ci sunna rek lañ ko tek ay ndaw yu jambar ñu sawar man de am naa yéene ànd ak ñoom wallahi seen jikko neex na ma tànk ñu ngi ci dëkk bi avancement rek ngeen di gis barki seexul xadim nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam jiital ci nuyoo bi chef de village teg ci imam di nuyu oustaz Souley mi nga xam ni moo jiite jamee bi yaakaar naa su ma ko nuyoo nuyu naa oustaz yi fi nekk yëpp su ma nuyoo chef de village nuyu naa waa dëkk bi yëpp euh, euh, kàddu gi nag dafa ma xaw a bett waaye oustaz Abdou moom mën naa ni day suñu rakk waaye nag bokk si ñun aussi muy nit ku baax aussi xale bu yaru waaye nag bu am fulla bu am fayda bu xam moom mooy kan yaakaar naa ne am na noo doon mel dooñu jaral ñuy déplacé wu di ñëw fii suñ déplacé woo ba ñëw fii sa jikko la jikko nag moom la ñuy àndeek doomu aadama man boog moom lay àndeek doomu aadama te Abdou jikko yu yiw jikko yu nekk ci nit ku yiw yëpp mi ngi ci moom macha allah yal na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla wéral say cër di sant tamit Baye Joni Faye mii di way juram ndax Abdou lu ma taq taq taq su neexul woon Baye Joni du am su neexul woon Batoor du am kon yéen ñi di ay waay juram tam maa ngi leen di sant di sant nijaay Ndéene mii nga xam ne mooy sama magu yaay kon moom mii rek bu déplacé woo ñëw Abdou Aziz xam nga ni kon yalla xamna ni wallahi man suma ko yegon bi muy ñëw ko ne baye ndee ma nga togal wero kon mom boko jarale lu melni, kon abdou yow sha allah ah, dama lay wax nak ni amato droit def erreur seigne Lamine sey ngi ne tok yow abdou tu n'as plus droit à l'erreur munatu la nek xale nga waye nak eh, am nga sas de nga gën gor góorgóorlu ndax lima gis fi tay wax dëgg yàlla eh, bu sa yar am na gën a góor góorlu ñoo ngi lay ñaanal yàlla di ñaanal waa dëkk bi tamit njëkkuma fee ñëw tey ñëw naa fi conférence Abdou ñëwati fi waaye yéen tamit kàddu yu baax yu yi ngeen di seede ci Abdou ci yéen la nekk ma ñëw fi nag liñ naan gan kenn mënu koo teree nettali te gan ay bëtam rek la yor ma fekk fi yar fekk fi yiw fekk fi baax yéen aussi yàlla na yàlla guddal seen fan yal na yàlla wéral seen seeni cër yalla len yalla bayi ak abdu ba ngeen dund ba ay cër di genn seen digeunte ak moom ndax wax deug yalla lu bax rek la gis ngeen jiko abdu yar aussi la fek di sante ñep abdu di lay jotali cadeau yi monsieur le maire neena lepp lo nek mom bu sañoon bo gestoo di ko gis waye nak daf fi nekkul tey moo tax mi ngi lay sante di la di sédé ni yar rek nga ko won respect rek nga ko jox di sante wa kir jom yep nak ci ni ngeen déplacer wo ñoo fekk si abdu sant naa leen gërëm leen wax dëgg yàlla yéen aussi nit ñu baax ngeen bu Abdou Aziz jógee yéen ñëpp ngeen jóg sant nañ ñëpp gërëm ñëpp sant Ramagay mi soxnaam moom tamit bu baax a baax jërëjëf. ñoo baax ndax Abdou lu woppee duñ ko gis lu xew duñ ko gis ak waa Taïba rek lay gis réew mi sax mënut faa ne Taïba rek lay wax kon nekk waa Taïba gi ñoo ko woon lu baax. noonu bu kii oustaz am na bis benn conférence am ma ne oustaz bàyyi neen la ak soleil rek mooy wax man du ma wax. mais lii mënu ko bañ wax waa tey ba amuñu morom ci Abdou Aziz mosu ñëw ni boppam métti sax ba mu dégg si boppam métti wala dara mu xalaat dara tey ba tey ba rek lay wax kon ne waa tey ba ñoo baax bàyyi mataar Abdou jàpp ngeen ko jàpp goo xam ne kii moom man sax buñ ma gisee dañu dee maay Abdou ak yaay ma gone buñ gis kon ne ñu ngi leen di gërëm yàlla na ngeen yàgg ak moom maqan tubaab fa yaa def fi jàmm wasalaam. salaamaaleykum wa rahmatullah. mbokku jullit yi mbokku dëkk bi mbokki Taïba Ndiaye ñu ngi jël suñu kàddu ci turu jamiati taasi wa irshaadul islaam bu Cheikh Samba Diagne ayyadahu allah wa nasrahu di sant yàlla bu baax di julli seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu imaam bi nga xam ni moom la yàlla jiital ci wàllu diine ji waaye itam di nuyu chef de village bi nga xam ni moom la yàlla féetal ci wàllu njaboot gi tabaarakallah ñaar ñooñu suñ leen nuyoo rek ñuy jotal ñu nuyoo bi waa dëkk bi yépp tabaarakallah alhamdulilahi rabbil alamin fi soxna maam xawa daanale fala bëggoon sax tàmbale ndax ci wàllu yar nun dañuy dem ci conférence yu bare bare waaye noppi leen rek ngay dégg noppi leen rek ngay dégg waaye li am solo bi am solo mooy kenn du dégg tey ba bu ñu tàmbalee ci conférence moo bu dul même bu dul conférence loo dégg mukk ñu ni toogal wala bàyyil wax ji loolu dañ leen koy seedal ci ne yëg-yëg lañu am ak yar loolu yàlla defal na leen ko kon fa tabaaraka loolu sant yàlla la ñëw nañ fi benn réunion boo xam ni dañu loon tertu mel ni kuy tertu président fa tabaarakallaa mu kawe lool ak yëg-yëg lool fonk nu lool ba bi ñuy dugg ci oto bi kenn bëggul sax ñu dem ñooñu ñu bëgg mbokk lañu waaye ñu bëgg diine lañu waaye nag loolu laa xarwa lu mënul ñàkk la ndax Taïba Ndiaye ci ñoom seen kàddu ak kàddu diwaan bi da dañuy dégg lu bare ñuy wax ci wàllu tay waa tay ba ci wàllu diine diine rek leen ñor diine rek leen ñor ndax li ñu duppee dëkk bi muy ba muy madinatul munawar kon ñooñu maam yëkkërët doon tey wax dëgg yàlla rusuñ du leen du ñu rus te itam bu leen demee ci ñoom itam duñu am gàcc mukk ndax alxuraan lañ leen bàyyi loon fii la taalu jàng yi nekkoon fii la diine gi sampoon boppam jaarale ko ci mag ñi ba fi ñu toll nii yéen a ngi koy doxal kon tabaarakallaahu gàcce nga laama ñi fi desandi yéen na yàlla guddal seen fan waaye yéen na yàlla fay leen ci puso bi nga xam ni mag ñi bàyyi woon nañ ko fi te réerul mukk te yàlla bu mu réer tabaarakallaa ñi ngi sant bu baax di sant ustaas yi nga xam ni itam ñoom lañ fi yebal la commencé ci Omar ba ñi Oustaz Abdoul Aziz muy lu kawe ñaari abdu yi nga xam ne tey la yàlla jegleel waa tey ba njaay kon nag alhamdulilah nii rek la mbir mi war a mel incha allah te kenn ku ne ci ñoom ñaar bu ñu waxee jukkoom ak qualité am allah mën nañ fi jant bi so ndax ci wàllu yar ci wàllu yëg-yëg ci wàllu jàmbaar ci liggéey sëñ Abdoul Aziz Faye bi nga xam ni tey bi fi Umar nekkee ñoom lañu fi ñoo fi nekkandoo woon mbir mi yaatu lool yaatu lool ba am dëkk bu ne seen ginnaaw fii ñu ko wax Cherif Mbay soxla woon man leen na Abdou dem foofu rek taal bi bu yànjee ñu tibb ci xal yi yóbbu tabarakallah itam mu doxal fa lu kawe lool ba nga xam ni ñoom yëg nañu yëg-yëg boo xam ni kawe na lool ci xam-xam bi fi Abdou doon jàngale Oustaz Fandé mën na koo seede ginnaaw bi ñu ko nuyoo di itam ziar bu baax ndax moom dañu yàggaale te diine rek ko ñor ndax diine rek moom mook fi tax doxal mook fi féeteel itam kon muy sunu mbokk moo xam ni mbokkum islaam ni mbokkum diine di jàmbaar ci wàllu diine islaam di am yëg-yëg lool ci képp ko nga xam ne borom xam-xam la bu leen déggee sànq kàddoom déggaat leen kàddoom mi ngi wax ci xaal ci da ngay dégg nii li muy wax ci xool bi la koy tibbee waaye jaar ci xel mi ba nga xam ni lu mu wax du déranger kenn parce que loolu moo gën a neex nit mën na tàng lu mu tàng te doo dégg mu ko wax mu wax musiba te gis nga fa laaw tàngam yépp ci wàllu diini la kon macha allah ñu ngi koy sant bu baax te da ci jàpp nag lool da ci jàpp te li ci oustaz Abdoulaye Gakou doon wax léegi nii ki ñaan ci borom xam-xam lañ ko fekk moo ko jënd mom daluk ndax da fay son lol son lol ci oustaz abdou ñom ñi di son lol ci amar ndjay ñom ñi waye di son lol ci jami ta wa shad islam mom oustaz fane bi xam mi ngi sunu ginaaw tabarakallah ñu ngi koy bu baax xam nañu itam lu ñu defal ci njabot gi wolof day wax ni jenu golo guduna na la ci dal borom yekko Yeg nañu bu baax ni nga jappé ci njabot gi ni nga jappé ci diini ji waye ni nga jappé ci daara ji tabarakallah yana yalla la fa la na yalla samal sutural la yalla may guddu fan ak wer may ka mbollem njaboot gi yëpp waaye may ka waa tund bi yëpp tabaarakallah ñi ngi sant xam nga doomu adam dafa nek lo xamni suñu waxe ba dem te tudd ñu rek nga nañu ah mom di tuddul dew te fekk ni bu ñu santee imam rek ak borom dekk wax nañ la yobbu nañ ñep waye nak ku melna mi nga xamni tay wa dekk bi yep ko jital magu fi de app fi xam-xam de app fi pexe app fi doole da leen doy sëkk ñu woolu ko mu ñu dénk ko mbiram daara ji fa la li ngeen ko dénk muy dox sunu diggante ak moom si noonu la desee waaye moom lépp matal na ko bu leen déggee kàddoom ni mu ci wax noonu la am moom xamul wax jëf la xam ndax kàddu yuñ fi mas a dégg mu wax ko balaa mu yegg rek daal dina jaxasoo kon nag yàlla mi nga xam ne mooy borom sutura yal na ko yàlla suturaal yàlla may ko wér yokk ko wér saafara jàngoro yi nekk ci yaram yëpp ak mboolem jullitu yàlla yëpp yal na ko yàlla defal bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te buñ ko santee rek yóbbaale na magam ja sëñ Fallou moomet fa tabarakallah lépp itam moom la ndax ba dara doonul woon dara yàlla jaarale ko ci moom mu yore daara ji ci këram bëggoon njabootam kese waaye yàlla mi nga xam ni lu baax rek lay bëgg ni doomu aadama nekk ca moo yaatu ba fafta amir mi yëpp waxuma la sax ba waaye diwaan bi yëpp fépp fu doomu aadama dem rek ci diwaan bi xam nga fu ba Njaay nekk ndax lan xam-xam bi nga xam ni moom lañ fi nekkee di alxuraanul karim macha allah bu laa ci wàllu conférence bi xale yi ñoo ngi leen di ndokkeel bu baax ndax alxuraan bu neex tari bu set bu sell bu leer noonu fii rek lañ koy gisee xam nga su ma ne woon ngay jawaar rek lañu ko gisee ñu ne kon moom ngay la ne waaye xam nga dëgg moom yàlla ko moom waaye alxuraan bu set alxuraan bu leer bu sell bu neex fii rek lañ ko gisee gisate nañ ko encore tey kon nag yan nañ ko fi yàgg fekk te nag li ma gën a yéem mooy góor ñi jigéen ñi ñoo leen man man damay loolu dafa ma jaaxal ba tey góor ñi daal xaw ma lu tax jigéen ñi daal gën leen aay rek bañ leen loon yi jigéen ñi day bu fekkoon islaam daganal jigéen jiite jigéen ñi ñooy jiite ji ndax jàmbaar dëgg lañu ñu ngi def yitte bu baax xool leen ko rek yéen ñëpp déglu ngeen tari bi waaye bu leen ko attee da ngeen gis ne jigéen ñi ñoo man wala bokk man loolu laa gis man jigéen ñi ñooy jël première góor ñi ñoo jël deuxième jëluñu ndaat waaye deuxième lañ jël waaw xamu ko topp ci ñoom kon fa tabarakallah gën leen def yitte bu baax gën leen am taxawaay bu baax xam ne incha allah liggéey bi kawane lool bu ko defee oustaz Abdoul Aziz fay ñu boole koog rakkam Abdoul Aziz Guèye moom it di njaboot yàlla dogal ñu jël ko tekk suñu loxo moom moo fi mokkaloon alquran ci année bi weesu moom it foofu ci ngay jawaar mu doon lu kawe lool am na ña ko si woon ci délégation bu mag ñu fekkee si woon ko loolu kon loolu moom du gan ci yéen xam ngeen ko lu jiitu mu fi ñëw kon alxu alxuraan boobu mu mokkal dañuy ñaan yàlla itam mu tasaare ko ci dëkk bi ba itam yéen ngeen mokkal loolu rek mooy jafeñ-jafeñ bi tey ba njaay woote ku mokkal xale bu tari loolu lay lay xaar si yéen waaye bu laa neex neex alxuraan sellu alxuraan sellu alxuraan yëg-yëg alxuraan am na fi cent pour cent léegi nag xale bu taxaw tari alxuraan bu mu jeex moom rek moo fi des te moom laa leen di demande incha allah moom laa soxla ci yéen te yaakaar naa ci jigéen ñi laa ko yaakaare tabarakallah kon ba tey bàyyi ma cheikh mi nga xam ne tey ay borom dëkk bi dimbale nu bu baax ndax jigéen ñi itam fekkee ku baax rek ñu roq ko mu dem sëyi ah du na am ku tari alxuraan de wala boog sax xale yi ci góor gi góor yi ñi ci dëkk bi nañu takk xale yi ci daara ji ñu continuer jàng ndax ñu mokkal alxuraan loolu moo gën sax nag waaye ñu maye ko fan yi weesu boroom kër bu mu leen muuru borom kër ga nekk gis nga muurukaay sànni ko ci àll ba jëndal ko xeesal jëndal ko mees bu gudd ba nag sax waaw xam ngeen bi may bëgg a wax bu seer ba te gudd wutal ko ay pantalon yu doy tubay yu doy loolu musiba la day day rey oustaz day dagg xol oustaz ndax defar bu mu baax ñu jox ko benn waaju mel na oustaz Sall xamul fu muy tag tangam mu yaqaat ko lepp ko musiba la hmm? kon nak ñen di baye xel lolu amna ki jikko mokal alquran ci jamiye bi tari ci diwan bi de keur paati mbub biñ ko maye mu dem sey bu mu dellu see ñëpp dañoo tit bu mu demee ba delu musul xippi xol nit loolu Alquran, ci la xiir ci la son waye bi ko yalla dogalee mu sey ba ñew lu mu jikko teeroo wa kërëm si premier nuit mees langa ak xéssal bu weex taalu ci liñu wax ñu ni bi mu nuyoo ci kër ga yaay gi sax niyu nako xaw naas lu kan la mu ne ko yaay da nga maa xamal man la man la diw mu ne ko diw ya melni mu ne ko mu ne ko nga lam tabarakallah nak musiba la ñu ci yalla musal kon nang nit lu mu gëm ñu gëmal ko ko te moy diine islam kenn waru ko ko mëna dindil il faut ngeen am taxaway bobu xalé yi fa ngeen mëna dem inshallah sëy fa buñ leen bëgg a jénneloo ci lii islaam santaane bañ leen na naka jar sëy ba tas waaye xam nga problème bi mooy i su ma ko bàyyiwul sëy bi tas kon sama sëy day tas tas waaw nuñ seet sëy bu tas ak islaam bi nga xam ni dalay dalay topp ba yowmal xiyaam ba bàmmeel ba ba yowmal xiyaam kon kon jar na sëy bu tas te boo dëggoo rek ñu bàyyi la ci nag soo dëggoo rek ñu bàyyi la ci kon nag dëggu leen bu baax tabarakallah kàddu yi mi ngi gudd lool waaye itam mbégte rek ak yëg-yëg bu ko defee ñu ngi sant ñëpp di sant Baye Mbacke Gueye mu nga xam ne tey nijaay la ci Abdou Aziz di waajuram di léppam ndax Abdou mii eh, li mu la ci mën a wax mooy waajuram xaafis la woon kaang la woon borom xam bu kawe la ci kër Mor yàq na mu nekkoon kilifa da daan wax ni sama doom bëgguma ci lenn lenn loolu mu alxuraan karim yàlla dogal bi muy mokkal alxuraan abdu mi bu muy mokkal alxuraan boobu waajuram jënd naa duna kon moom it roy na waajuram ci alxuraan karim tabarakallah muy lu kawe lool Baye Mbacke taxaw ci rek ni daal kii bàyyam daf ma ko dénk ni ma alxuraan laa bëgg ci moom moo tax yàlla defal na ko sutura mokkal alxuraan loolu itam cër la bu kawe bu defee bu sa oustaz abdou moom Aziz Faye xam naa ne li ci oustaz gaa ko wax léegi rek bëgg nañ ko lool mu jege si kiir lool waaye xam naa ni itam yombul itam lool xam naa ñu ñaan yàlla rek ba ci kanam rek ni li daloon Omar rek li daloon Omar rek waaw yàlla bu mu ko dal mu wet tabarakallah xam naa ni itam soxna si dinañ ñaan pour mu gën a jege si waaye xam naa ni itam du yomb man daal su ma woon soxna si damay wax ne nañ ko wutal fii ñaareel rek waaw xam naa nag ñemewu soxna si moo tax ñemewu ko wax nag waaw moo tax fi mu ne waxuma ko de ma ngoog ngeen bàyyi ki xel bu defee incha oustaz Lamine Sey mii oustaz gaa ko doon wax fi lay tëjee moom yàlla dogal na jëm yi taasi bu ñëwee ngumba ba yaatu fii yàlla nga ko jaarale ci loxo baayam Abdul Aziz Sey rahimahullah kon tey lépp lu yow conférence bii tey seddu na ci tey jëf ju baax lu tax mu yéeme mooy boo defee lu baax ba jënn àdduna lu baax loolu ñooñu continuer ko tuyaaba bi dalay fekk si te tey fii nii ci daara yi am nañ fa lu ëpp fanweer ak juróom ci ay daara ci diwaan bi te daara yépp yépp mi ngi jaar ci loxoom ndax moom moo xamanteeg sëñ sàmba ci ndar ndax moom ndar la nekkoon yoroon fa daara ju mag doon ko doxal fa la xamee sëñ sàmba xam kan mooy sañ sàmba moo tax bi nga xamee ni bëgg na islam bi yaatu ci diwaanu Ngumba dafa fexe lijjante ba gis sëñ Samba mu jox ko oustaz mu indi ko kiir joom ñu koy wax oustaz Abdourahmane Ndiaye rahimahullah nu ko yàlla yërëm ñoñu ñolon doxal di doxal di doxal fatwarakallah ba mbir mi aksi fi kon nak tuyaabo yep tay ñamet dañ ci jot jataay bii nu yendu tay di ci son di saku xam-xam di saku yu di saku tuyaaba ñamet sen tuyaaba dañ ko jot inshallah allah kon fatwarakallah tabarakallah ñu sant bu baax di contane bu baax di gërëm ñep rek di baal haq ñep di wax ni inshallah taala daje bi yalla bu mu doon suñu muju inshallah allah wax am ben mbokk mu tawat bu ñu wax men job Ah, incha allah bu ñuy tëj rek ñu ñaanal ko yàlla may ko shifa yàlla may ko saafara saafara boo xam ni dootul yëkkati benn métit ak mboolem ku fi indi jàngoora ku fi indi tawat ku fi indi jaaxle tabaski bi ñu jublu xale yi wax nañ ko de xale yi wax nañ ko de xale yi wax nañ ko de mbokk yi waaw kon foofu laa yam kon ñu ñu ñu bañ a diisal dara ñu wayefal lépp rek jigéen ñi sax nun jigéenu waalo ñoom ñooy jëndal seen borom kër xar jigéenu waalo foofu de la ñu baaxee moom foofu moom baax jigen walo walo walo ñom ñoy jindal sen borom kër xar ma sha Allah lolu mom xamna ko bax xawma nak jigenu njambur njambur wala kajor kajor kon nak jigen yena nga nonu yena mom lolo yobonte la na ngeen fexé ba tuwar fa kala ren ku dekk tay ba dal naka soxnam jindal tabaxal jindal xar naka jindal xar lolo la len sosé de lolu la len sosé inshallah ñi ngi jéglu bax kaddu assalamu alaykum wa rahmatullah mangi ngi jéggalu bu baax oustad Abdou sax joxat na ma kaddu ma gantal ko ni ko joxal ma mudir Cheikh souleyman Sall li tax ma jël kaddu nak du oustad Serigne Abdou Aziz ndax sa wajur lañ ko tuddé sama waxé ci mam dañ nan wude lam la wax ci bay wu febar ñu der ba tax waye ndokk yalla na der ba tax sax faf nak ndax jar duma wax ci Cheikh souleyman Sall ndax ño bok liñuy liñuy wut dama wax ci oustaz Abdullahi ko ndax daara ji sëriñ bi gënoon a fonk moom moo ñu ko yoral waaye yéen waa tey ba yor seeni doom di leen jàngalu alquran laa bëgg ngeen bàyyiloo xel ci xale yi ngeen def ci yitte bañ ñu échec lii waral xaral échec nag ñaar la xolu sëriñ bi xolu sëriñ bi bañ a sedd ci xale bi ak tas yaakaari sëriñ bi ab sëriñ boo ko joxee sa doom dénk ko ko waxuma la lim ciy def waaye dénk ko képp mu yeewal la xale bi waaye yow it war ngaa yeew sëriñ bi yeew sëriñ bi mooy fexe ba sëriñ bi di wuti dara tas yaakaari sëriñ bi nag mooy muy xëy xale bi di gonta xale bi di nab nabe xale bi non seulement fayoo ko dimbali woo ko jàppale ko xale bi xàmmee fukk ak juróom nga ne ko coppit yóbbu mu liggéey bari na sëriñ bu faatu sëriñu daara bu faatu yàlla rëyu ko yonent bi rëyu ko malaayika yi rëyuñu ko ab dépense rëyu ko jabar ju bari coow rëyu ko yaakaar jum am ci xale bi nga tas yaakaari sëriñ bi te dafa am xale yoo xam ne ay ay ay avenir lañu sëriñ bi day jël seen lépp teg ci ci ñoom mu daj ca ne mu xëy gis oto bu gaare ñu dugg génn nga ñëw ne ko sëriñ bi ndaw si dañ koy may bi sàngam te moom am na fa fu mu gisoon sax fu mu gisoon taalibe bi non seulement boo ko defee tas nga yaakaari sëriñ bi mais xale bi moom dootul am barke fu koy jëlee lum yaakaar mu tas lum séentu du ci jot ñu naan ko cata ko jàpp fekk sëriñ bi xolu xolu sëriñ bu tàng ci ci donga bi moo tax sëriñ bi mënatu la avancer. bu dee ko góor ki moom bu buñ ko yóbbu sax du ko gis gis nga ñii nga fi gis bu demee ne yeneen kanam nga fi gis yeneen gone ñii ñëpp dañ leen a jël ñii dañ dem wuti sangam ñii dañ dem nangam ñii dañ dem nangam yeneen gone nga fi gis daanaka day dem bu mujj daara yi day nekk ay ay jardin d'enfants xale yi mënta wax lañ fay indeeg xale bu tëg ku ku bëgg a dénkaane sa doom loolu du diine du ngor du du am njàng am njàng dañ koy topp ba mu jeex njàng mu yëggul ak lekkatu suuroo ñoo yem. njàng mu yëggul ak lekk te suuroo ñoo yam kon na ngeen maslaxa ak xale yi bàyyi leen ak sëriñ bi mu gunge leen ba fi mu bëgg a sëriñ bi ñaanal ko mu dem lum laal loola am barke damay dégg ñu wax toog muy dox amul mais borom barke kay borom barke kay jeexal nay wax même bu toogul muy dox lum soxla yàlla def ko waaye jël sa doom jàpp ci loxoom yóbbu ci sëriñ Abdou wala Oustaz Gàkko mu nekk cay nab nabi nga xëy ni ana xale bi ñu ne la moom de dem na ndakaaro moom de daa faf liggéey yi moom de nangam ak nangam yooyu nanu ko moytu damay wax ni xam-xam bu bari amul solo njàng mu bari amul solo barke moo am solo te barke nag sëriñ bi képp moo ko mën a def ci donga bi waaye bu weer dee yow fay nga sa courant fay sam ndox jënd say ravitaillement def sa natt natt say natt ba yëpp mat lam des nag nga doog a dem naa fay sëriñ bi te ab sëriñ kenn du ko fay la cinq bàyyi lañ ci xel ab sëriñ la vingt huit lañ koy fay la vingt cinq lañ war a fay ab sëriñ maa ngi koy wax sànq sëriñ may ci biir ma ne ko jigéen ñi ñaar képp man ci ñoom dara ñaar képp mu ne ma kan ak kan ma ne ko natt bu ñu leen di alamaan ba ab photographe dañuy dem bala le vingt cinq ñu doog a ñëw fay sëriñ bi te ab sëriñ kenn du ko fay la cinq la vingt huit weer wi des na ñaari fan jox ko ab xaalisam xolam sedd mu dem daa bàyyi kër comme yow bàyyi soxna comme yow bàyyi ay doom comme yow waaye sëriñ bi jox la fayu donga bi nga dem natte ko maa ngi koy wax ma yëpp sànq ma ne ko ndaw su la romb di xelu du yittee jëkkëram natt bu ñu koy waaj a alamaan te ñeent fukk képp lañ koy alamaan moo tax muy xelu ma ne ko photographe képp a mën ci jigéen dara moo naan ko wëlbatikul mu walbatikul jugal taxaw mu jug taxaw toogal mu toog wan ma gannaaw mu wan ko gannaaw ku dul ñaar ñi mënoo ci jigéen ñi dara kon nag nañ dimbali xale yi man xale yi laa bëgg ñu dimbali leen ndax dama cee yorte dama cee jaar sama baay jaar ak man fu metti 1992 la ma dugaloon ci jamiya bi sëriñ Abdou doom ji am jaar nga ci jamiya bi mais kenn jàngale ci xam nga lu tax bañ a déranger ñu yaakaar ne boppam la nan xàllal doom jëm am jaar nga ci jamiya bi yéen sëriñ bi bu njëkk dañ daan bayal ab sëriñ tool léegi buñ nee nañ bayal sëriñ bi tool ñu ne daa bëgg lu yomb yow sëriñ bi duñ ko jox xarum tabaski moo koy lijjantil boppam yow bu sa kër neexeet kër sëriñ bi moom yenn saa soxna si yëngatu bu di mu ne ko sama nàngam ak sama nangam waaye nañ dimbali donga bi dimbali sëriñ bi fi may daane nag Oustaz Abdou maa ngi lay ziar bu baax di jéggalu eh, di tuub bu baax ndax Oustaz xam Oustaz Gàkku xam na li ma wax boo yoree ñaari soxna boo bëggee génn kenn ki danaa ah da ngay sàcc sama ay gi fekk ma yeewu 6 soxna si ne ma foo jëm xam naa daa yaakaar ne ca keneen ka laa jëm ma ne ko dañ maa woo ku la woo ma tiit ma génn numéro bi wan ko comme xam na Oustaz Abdou Aziz mu gis ma bind ci Serigne Abdou Aziz Faye mu ne ma ah foofu nga jëm ma ne ko ah wóor na ah oto bi bay jël nga xam ni rek <laughs> moom ragal naa ko waaye moom it ragal na Oustaz Abdou <laughs> comme xam na li ci laa jëm. moom moom dana ma bàyyi euh, bu ko defee ngeen bàyyi xel ci ci wutal xale yi barke xale yi mënuluñ dara seen bopp yàlla xam na ko yéen waajur yéen képp koo xam ne diggante fay nga yem ak sëriñ bi fay kese kese kese kese kese xamal ni li nga li nga ci def rek nga yam sëriñ ab xale boo bëggee mu am barke da ngay wut ki lay sukkar di jox sëriñ bi di jënd war nga di ko yóbbul di jënd ay tisi yenn saay sànni ko bo amé dalu wu bes nga may ko waye fekk mbum mi gëna rété ci kër gi nga lem ko def ko ci mbuus ñuko joxal ma sëriñ bi lu ko sëriñ bi doyé kon nak oustad Souleymane ma ngi jégg lu baaxa baaxa baaxa baax wax ju gudduna ah, bu ko defee ñuy jox oustad Abd Abdoulaye mu ñaan rek ñoo ngi lu ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu xale dëkk bi ñi ci dekk bi ñi tukki yépp yalla na la yalla may koom ak mbolé madina bi yépp fu ay tak yalla nako yalla fay képp ko am aaju am soxla yalla na la yalla fajal ku am tawat yàlla la yàlla teggil bi jaay si na salaahu salaam oustaz Pape Seck nag ci lu dul ngànt bul gàntu nga tëjal ñu ñaan gi incha allah fatiha salaatul fatih incha allah taala